Euh, et on en parlera tout à l'heure dañ ci yegg si ci wàllu grâce présidentielle bi ci tànneef bi ñan la ñu ko war a attribuer ak ñan la ñu ko war a attribuer mm-hmm. mais est-ce que vous êtes d'accord wala quel est votre avis bokk ci li nga xamante ne moom mooy cette question de peine de mort qui est soulevée de plus en plus c'est bien que les droits de l'hommiste d'accord ñu ci mais ñu bëri dañoo jàpp ne daal boo reyee dañ laa war rey euh, pour que li nga xamante ne moom mooy taux de criminalité mu wàññeeku waaye je crois que c'est une question très pertinente et c'est une mhm. question en tout cas qui nous rattrape parce que à chaque fois que ñu constater ces scènes criminelles je tiens à rappeler aussi Cheikh Ousmane mu ngi koy brosser tout à l'heure la société sénégalaise n'est pas une société criminogène dafa am ay sociétés yoo xam ne c'est des sociétés criminogènes par exemple États-Unis c'est une société criminogène foofu bu crime bu ñu rayoon par exemple cent personnes mais ñun boo gisee par exemple bu benn seen criminel amee rek mu mu mu créer benn tollé. Mhm. c' est parce que nous ne sommes pas une société criminogène. Mhm. Une société boo xamante ni. ñun dafa am ay valeurs yoo xamante ne tey jii nii moom moo moom moo sous-tendre en tout cas li nga xamante ne moom mooy sunu sunu dundin même bu fekkente ne valeurs yooyu noonu mi ngi nekk en mi ngi nekk en état de détérioration comme ni ko Cheikh Ousmane Touré expliqué. maanaam jikko yaa ngi yàqu. voilà parce que booy xool par exemple criminalité ñun bu ñuy jàngal criminologie dañuy wax ne par exemple crime dafa am ce qu'on appelle des facteurs endogènes am ay facteurs exogènes. boo analyser par exemple facteur exogène yi da ngay intégrer société. xam nga li Rousseau waxoon ne l'homme n'est naturellement bon mais c'est la société qui a corrompu sa bonté. mooy par exemple tey éducation de la faillite de l'éducation de base d'abord. wala mmh. voilà, peut-être ne pas parler de la faillite de l'éducation de base sa papa mën na la procurer benn éducation de base nga génn société bi détruire la. Mm-hmm. donc loolu noonu lépp day nekk ay facteurs yoo xamante ni de plus en plus bu ñu koy constater rek mën xam nga peine de mort ñun juriste yi conception bi ñu ci am ak conception bi nga xamante ni opinion la am bokkul. ban conception parce que l'opinion mm-hmm. ñu jiital. xam nga par exemple da ngay gis par exemple waaye lii métti na waay nan indiwaat peine de mort nan indiwaat peine de mort nous les mm-hmm. par exemple la moo tax ñun ñu bañ peine de mort. Mm-hmm. bëri na ñoo xamante ne ni condamné na leen pour des faits criminels alors que c'est des innocents. bëri na ñoo xamante ne condamné na leen waaye condamné na leen pour des faits criminels alors que c'est des innocents léegi supposons par exemple ñu tuumaal nit ne dafa rey nit mm-hmm. alors que ci ay tuuma la moom reyul nit parfois il y a le risque la peine de parce que la peine de moom mooy la la capitale mm-hmm. la guillotine dañ mm-hmm. lay teg sur la place publique ñu exécuter la loolu tey jii en tant que juriste du ma mën a d'accord en tout cas pour le rétablissement la peine de mort pour la bonne et simple raison que à partir du moment où ku rey war nañ ko mën a rey mais parfois aussi ñu violer la présomption d'innocence rey koo xamante ni dañ ko tuumaaloon ne dafa commettre un acte criminel alors qu'en réalité commettre un criminel mais Sénégal bëri na ñun fi tëj pour pour pour pour des scènes criminelles pour meurtre assassinat alors que c'est des innocents te Voltaire dafa da doon wax dans l'affaire Calas mieux vaut condamner mille coupables que de condamner un innocent absolument ça c'est vrai mieux vaut condamner mille coupables que de condamner un innocent. c'est-à-dire condamner mille coupables moo gën tey jii nga condamner kenn koo xamante ne innocent la. et si on part de ce principe là le rétablissement de la peine de mort 98 pour cent des juristes dafa jàngat bi ma la wax. boo leen interroger sur la peine de mort dañ wax ne d'accord pour ñu indiwaat peine de mort. parce que leen fi fi ñuy fi ñuy wékk analyse bi mooy oui koo xamante ne ne faat nga ba kenn mérité nga tey jii ñu sa bos. mais ay procédure la parce que tey jii par exemple mën na noo tuumaal nit ni mhm. dafa rey nit alors que moom reyul nit mais kooku bu ñu appliqué ci moom peine de mort dañ absolument si on applique la sentence capitale à l'encontre de cette personne bi nga xamante ne ni ay njort ay soupçon lañu am ne moom dafa rey nit alors qu'en réalité dans les faits reyul nit mhm. mais combien de fois la fi nit tëdd kaso dix ans def man ñu def la mandat de dépôt mhm. Mhm. parce que devant la chambre criminelle on ne parle pas de relax. Mhm. relax c'est devant le tribunal correctionnel. Mhm. wala le tribunal des flagrants délits. mais si c'est la chambre bu ñu ba àtte la ñu jàpp yow kat jàppoon na ne da def crime mais li ñu lay tuumal du crime juge bi da lay mais combien de fois lañ constaté Sénégal nit def dix ans prison rëbës ñu yóbbu la si ëttu àttekaay bi juge bi constaté ne kat ah kii kat li donc à partir du moment lo yooyu noonu am na pour ne pas commettre l'erreur en tout cas de condamner des innocents mm-hmm. pour ne pas commettre l'erreur en tout cas d'appliquer la peine de mort sur des personnes innocentes moo tax ñun juristes yi dañuy da dañuy xalaat d'autres alternatives yoo xamante ne nii mm-hmm. mën na en tout cas def de telle sorte que mën na tempérer la criminalité mais je ne pense pas euh, en tout cas que le rétablissement de la peine de mort soit le taux de la criminalité devient de plus en plus d'accord ah, ah, maintenant durcissement des peines war naa mën a doon loo xam ne lu am na fii ci Sénégal. oui am na Sénégal le durcissement des peines. parce que tey jii par exemple bu la condamné pour yenn infraction yenn xeetu ñaateef yu yu yu yu grave yi. possibilité bénéficier li nga xamante ne tey jii mu mën a tuddee dispense de peine par exemple en la matière bu la condamné pour assassinat. Mm-hmm. amoo possibilité dispense de peine d'accord bu la condamné pour benn meurtre pour yenn meurtre yi amoo possibilité dispense de peine mm-hmm. donc obligatoirement li nga xamante ne tey jii moom mooy sa moom mooy sa peine da nga koy da encourir en tout cas jusqu'à ce que tey jii nii mu délai bi nga xamante ne tey jii nii jot na mu jeex mais en tout cas le rétablissement de la peine de mort l'histoire a démontré que musul nekk solution en tout cas pour amenuiser li nga xam ne moom mooy la criminalité boo à la place mooy li. Ah, la peine capitale nga xamante que gis xam nga la première solution bokk na ci mooy li Cheikh wax sànq ñu interroger en tout cas li nga xamante ne moom mooy bépp pàcc parce que ce ne sont pas les juristes simplement qu'on voit au chapitre pour parler de ces pour parler de cette de cette de cette situation il y a les sociologues les anthropologues donc ñoom ñëpp war na noo mën a émettre seen i seen seen i seen i seen seen avis mais au-delà de ça yaakaar naa ne aussi état comme que moom moo am le garant de la sécurité des personnes et de leurs biens war na def de telle sorte mais que ces polices de proximité là soient plus préventives que réactives. Mmh. C'est important que ces polices de proximité soient plus préventives que réactives mooy mu bañ a nekk benn police boo xamante ne réaction luy ëpp lu muy def que prévention. surtout ça. tey par exemple gis constaté naa leen loo xamante ne mu ngi commencé am Dakar mooy caméra de surveillance yi na bari. Mm-hmm. loolu déjà c'est un pas pour réduire en tout cas li nga xam ne moom mooy yenn xeetu ñaar yenn mais jumtukaay bu mat lañ dul am même bu dee am na patrouille bu amee benn groupe de personnes boo xamante ne euh, euh, ëpp na leen loxo dootuñ ko mën a maîtriser. tout à fait donc bu patrouille bi nekkee une. patrouille même s'ils sont armés a par une patrouille parce que xam nga euh, ASP yi je crois que aussi xam nga la formation bi nga xam ne defal nañ ko ASP quoi qu'on puisse c'est une formation ils n'ont pas les qualifications ils n'ont pas pour pouvoir en tout cas ñu ñu ñu ñu agir à titre préventif. ah man de loolu laa gëm. les ASP. Ah. donc léegi nag nan la ñu war a mën a xalaatee def de telle sort que police de proximité bi ñu gën leen jox ay jumtuwaay gën leen a jox benn formation boo xam ne dina leen mën a permettre ñu nekk ci gox goxaani ci quartier yi pour que tey ji patrouille bi nekk une patrouille bu permanente ñu gën a am réaction ñu gën a ñu gën a am prévention que réaction. parce que boo xoolee ñun suñu poli suñu suñu suñu suñu police de proximité bi réaction moom moo ëpp prévention mooy affaire bi day am ba pare ñuy ñuy ñuy door a agir que tey jii li nga xam ne moom mooy la prévention. waaw parce que d'ailleurs maa ngi dégg euh, je pense police de la place de camp. que dorénavant dinañu def ay mesures yoo xamante ne pour wàññi insécurité bi nekk Dakar. ça c'est vraiment âgé ça je veux dire c'est le médecin vraiment après la mort. Absolument. mais toujours est-il que léegi bu ñu demee ba tiitaange am ci askan wi nag ba kenn ñemeetul génn tu n'es en sécurité ni chez toi ni dans la rue il va présidentielle bi souvent dafay indi ay problèmes yu bari. le président mën na gracier si gracier sans pour autant mu am euh, tous les éléments de réponse souvent ñu gracier koo xamante ne nii euh, criminel wala en tout cas dañ ko juger pour ay faits criminels euh, ñenn ñi di wax ne bu ñu dee gracier xanaa mën nañu seet ñi nga xamante soit seen peine day waaj a jeex wala defuñu yenn délit yu garaaw a yi ñu gracier leen mais di gracier ñoo xamante bu ñu génnee. kaso moom comme hôtel lañu ko def seen nekk ay récidiviste wala nekk ay récidiviste ça pose problème souvent donc euh, euh, par rapport à cette grâce là en réalité sur quelle base la war a mën a tegu et comment se fait-il que souvent ñu gracier koo xamante ne bu tuuram génne ci liste rek ñëpp dañuy daal seen gémmiñ voilà xam nga question bi dafa am solo mhm. parce que la grâce en droit pénal en droit dafa nekk une mesure d'élargissement au même titre que l'amnistie fekkente ne ñoom ñaar bokkuñu xam nga la grâce c'est une prérogative boo xamante ne c'est la constitution bi nga xam ne moomee la charte fondamentale daf ko joxe président de la république à chaque fois que yenn événement d'envergure am le président de la république puisse avoir en tout cas le pouvoir discrétionnaire mu gracier ñenn ñi nga xamante